man la Daouda Ba directeur école algorithme donc séance bi ñuy euh, réunir tey jii ñun nii ak suñu waa partenaires yi force yi séance la boo xam ne séance de sensibilisation la forum boo xam ne sensibilisation lañ ci def sur Covid ak feebar bi nga xam ne mooy jàpp xale yu jigéen ñi dañuy ak feebar cancer du col de l'utérus boo xam ne dégg gis nañ temps yi nga xam ne euh, mi ngi bëgg a bari ci suñu réew mi donc euh, waa FAFSA bu ñëwee tey. jàppale ñu ci sensibilisation ñu sensibiliser suñuy élèves yi nga xam ni ay xale yu jigéen lañ euh, am 9 ans ba 14 ans sensibiliser aussi seen i parents donc duñ nekk lu dul activité boobu duñ def lu dul ñun am ci kontaan am ci mbégte parce que loo xam ni moom euh, day jàppale askan bi rek école war na cee mën a dugal loxoom daal waaw. waaw mais dañu dañu gis ne dafa mel ni mesures yi léegi kenn respecté waaw waaw parce que temps yi gis nañ observé nañ que ni am na au niveau des élèves et même des maîtres ñun ñi nga xam ne ñun sax maîtres yi la léegi port masque daanaka respecté duñ ko mais toujours am na ay réflexes yoo xam ni des na ci Covid bi parce que toujours da nga gis euh, lavar yeeg yooyu xale yi ñoo ngi koy utiliser di raxas seen loxo lool mais des na aussi port du masque bi moom léegi rek na mesure boo xam daanaka boo xoole ci biir dëkk bi ak ci école bi nekk nekk na mesure yoo xam ne kenn respecté du ko. Adja Ndeye Ndiaye Samba Daly Euh, présidente départementale de la force de Diourbel ti tax nga xam ne dañu ciblé école yi balaa boobu damay wax ni euh, dañu nekk kuréelu jigéen yi nga xam ne dañu yëngatu ci département yi di yëngatu ci région bi di dugal suñu loxo nag ci activité de développement yëpp te comme ni ko ñëpp xamee daanaka boog laay wax dañu gis ne région de Diourbel dafa nekk région bu nga xam ne taux vaccination bi ci Covid 19 ci col de l'utérus dafa nekk bi nga xam ne moo gën a tuuti ci yëpp faf si nag ne kon waree fam la wari garam la mu jóg jéem a projet bu nga xam ne en partenariat avec l'UNICEF ci foofu nag ñu ci ciy sant di ci gërëm autorité administrative yi di ci gërëm tamit autorité yi au niveau sanitaire muy médecin chef district muy médecin chef régional nga xam ne ay partenaires lañu ànd ci ak ñun pour ñu initier ay activités de sensibilisation activité yooyu nag am na ay mobilisation sociale am na ay VAD am na ay effectivement tribune d'expression ay atelier yu nga xam ne balaa boobu sax laajoon na leeral ak ak atelier yu nga xam ne bu paree dinañ évaluer pour xam ba xam la taxoon ñu tënk projet bi ndax maanaam yàlla def nañu jot ko atteindre nañ objectif bi te ci biir loolu tamit yaakaar naa ni buñ ko defee suñu yeneen nattaangoo def ko dina tax ba nga xam ne taux bu fee bu néew bi ci région Diourbel yàlla mën naa def mu yëkkati ko ba nga xam ne région Diourbel nekkatul lu des ginnaaw waaye ci yi ñu ciblé yëpp nag am na ci ay gox yu bëree bëri waaye ci école bi ñu nekk ngeen ñu laaj tey dañu gis ne école euh, ñuy jàngale ñu ngi ci c'est l'éducation ñuy jàngale ñu ngi ci ñuy jàng ñu ngi ci ñi nga xam ne ñoo ñooy parents élèves yi ñu ngi donc yaakaar naa ni dañ ne mbay ci say om donc bu njàngale amee xale yi dañ nekk wax ñu sa xale yi tey ñu wax la ñan ñooy doon say kilifay ëllëg donc baax na xale yi en dehors seen parent ñu xam li nga xam ne dafa nekk lu baax lu war a nekk lu am xale yi xam ko parents yi xam ko ñu leen jàngal xam ko di leen ci doolee ñaax parents yi tamit bu ñu génne en dehors seen doom yi aussi ñu nekk ay relais yu nga xamante ni aussi dinañu sensibiliser nit ñi mën a dem ñàkk ji parce que ku la ne euh, fagaru rek sa taar la bëgg ñàkk yi il faut comprendre que la région de Diourbel dafa am ay considération socioculturelle yu kenn xamul yoo xam ne moom moo tax ba ñu des gannaaw ñii ñu ngi naan ñàkk yi ku ñàkku da ngay dee ñii ñu ngi naan doo am doom dootoo nekk dootoo ama nekkati sa ngóor a dootul demati ñii ñu ngi naan da ngay dee alors que yooyu yëpp ay fausse information la donc yooyu yëpp daal la ñu bëgg a waxtaane ak nit ñi pour jox leen exemple yoo xam ne tey buñ ko seetoon tey jii nee naa leen ñun bu doonte loolu ñoom dañuy jóg pour faagaagal mais lekk yi nga xam ne presque bitim réew lay jóge buñ ko ci defoon booboo gën a gaaw donc c'était c'est des exemples yoo xam ne rek dinañ leen ci génneel yu bari yu nga xam ne yàlla mën a def ñu convaincre leen ba vraiment ñu def vaccination bi yàlla jàppale ñu pour ñu mën a atteindre suñu objectif eh, dañ ñëw fii dans le cadre des activités euh, de promotion euh, pour la vaccination contre la Covid-19 et le HPV. donc euh, ñu jàpp que ne euh, xam na ne fii au niveau de du Sénégal et dans ces quatorze régions euh, Diourbel dafa nekk région boo xam ne moo gën a am moo gën a faible taux de vaccination. donc par rapport à cela l'UNICEF en partenariat avec la région médicale donc en partenariat avec le ministère de la santé. ñoom ñu ñëw fii di fi def benn campagne de vaccination vraiment pour booster le taux de vaccination aussi bien pour la Covid-19 comme pour euh, au fait le HPV. donc loolu taxoon ñun aussi bien que ça soit au niveau de l'association Soyons Ensemble ñun ñu déployer une stratégie euh, de campagne de vaccination pour ces deux euh, kii yi nga xam ne moom laa wax nii. mais aussi dina permettre à ce que stratégie bin bi ñu mooy que ne nan dem déjà au niveau. au fait euh, des écoles en tout cas au niveau de la communauté pour mën a sensibiliser leen. dañ koy boole ak activité au fait euh, vaccine vaccination bi. ah jusqu'à nit ñaa ngi commencé di vacciner wu aussi bien pour la HPV que la que la Covid 19 et que ça va ko ne jàpp naa ne que ne affaire dina gën a jëm kanam. te jàpp nañ que ne d'ailleurs bu ñu defee campagne de de lancement boobu sa permettra à ce nit ñi vraiment gën a xam euh, action bi. parce que le problème mooy que ne nit ñi dañ defee que ne Covid bi dafa jeex alors que fi mu nekk nii Covid bi jeexagut la preuve mën naa joxe benn exemple équipe nationale beach soccer bi mu demee au niveau par exemple bi mu demee Coupe d'Afrique bi mais am na trois yoo xam ne dañ leen mettre en quarantaine parce que nit ñi mi ngi mi Covid baa ngi fi xëy na euh, léegi ce n'est pas plus sévère comme ça l'était au au temps mais la Covid est là et toujours là. et que jàpp nañ que ne euh, ñun euh, lu lu ñu war a combattre la loolu nag il faut ñu gëm loo ko nit ñi bu buñ ko gëmloo nit ñi si lay nangu si la nit ñi di gën di nangu di defaat euh, campagne beneen mooy tamit li laral leeral mooy que ne nit ñi dañ defoon ne ku defoon vaccination 2021 pour yow su ne plus la peine ngay def vaccination alors que léegi il faut que ñu réactualiser ko parce que vaccination boo defoon 2021 ce n'est plus d'actualité donc ñuy gën a ñaax nit ñi en tout cas ñu si ñu continuer si campagne de vaccination yi pour que ëllëg activité économique yi ak activité socioculturelle yi bañ a wàññeeku parce que jàpp na ne bés bu mbas mi dugg duggatee tamit activité économique dina nekk euh, dina retardé gën a yokk euh, jafe-jafe yi nga xam ne guerre Ukraine bi ak Covid bi 2021 indi woon na ko.